mbokku internet yi ñu ngi fii ci kër Serigne Saliou Ndigal Thioune ñii ngeen di gis di leen seetaan ñenn la ñi nga xam ne woon ñoo àndoon ak Serigne Béthio Thioune liggéey bi yàlla dogal mu jiitu bàyyi leen fi yàlla na yàlla yokk ay leeram ñu toog toogaay bu rafet jàppale seen doom nekk ci ginnaaw seen doom gunge ko loolu nag bu amee ndigal la yaay booy àddina yëpp mu ngi lay seetaan nan ngeen dundee màggal gi ren ginnaaw bi ñu la nuyoo. waaw bala maa wax dara damay siyaare Serigne Mountakha Saliou Serigne Mountakha Mbacké Bassirou di ñaan lu yàgg fi lool te wér Mbacké di ñaanal Serigne Cheikh Mbacké Saliou lu yàgg fi lool te wér Mbacké Cheikh Mbacké suñu sëriñ wasila mu yàgg fi lool te euh, di ñaanal Serigne Sall ndigal bi mu yàgg fi lool Mbàkke te wér tey moom bisu bisu màggal bisu la waaw ñu ngi ci mbégte ni ngeen ñu gisee ñu ngi bég waaw ñu ngi bég ñu ngi sant ci nii mu mel wax naa ko léegi bi ma amee 16 ans laa dugg ci kër gi def naa fi 40 ans nii mu mel na mësa mel man dama rafet ci moom jot moom sëñ Sall digal bii dafa yaru dafa teey wax dëgg yàlla dafa déggaloon sëriñ Béthio nekkoon ci ginnaawam te leer na ma ni loolu lay continuer ñun nag li ñuy fas yéene ànd ak moom faaw ñun ak suñu njaboot dañuy ànd faaw man ak soxna Mbose ak njaboot dañuy ànd ak moom barke Serigne Sall loolu rek moo ñu war te ci loolu la ñuy nekk te moom neex naa àndal moom neex naa àndal dafa yaru dafa teey te ah mu ci ndigal li te ndigal ndigal moo wóor ndigal moo noppale suñu xel dafa dal barke Serigne Sall nan ngeen di wax ñi nga xam ne mën naa ne seeni doom lan seen lépp lan ci cant bi bokk ci cant gi te fekk si wunu Serigne Saliou ànd ak ñoom ci liggéey bi boo amoon looy digal lan nga leen di digal. man de li ma wax rek laay waxaat ndax sëñ Béthio fee mu ne leer na ma ne fi nekkoon a loolu rek ay am waaye nag ainsi va le monde man de dama am yaa yàqin ne ne te dinañ àndi li sëñ Béthio bëgg te mu nga fële mu ngi gis dinañ mus a àndaat dinañ mus a àndaat man de loolu laa xam loolu laa moo nekk maanaam loolu laa gëm te sëriñ Béthio danaan wax soxna Aïssa moom mu wax ci moom dëgg la ci moom man de yaakaar naa ne sëriñ Béthio du seetaan ak sëriñ Saliou féewale bi am di am xalaat naa ne dinañ ñëwaat ñun ñëpp nañu àndaat ngeen màggal te sëñ Béthio newu fi nu ngeen ko dundee ah xam nga rek il faut am absence dañ koy ressentir waaye nag sant rek mu ngi ànd ak ñun ba tey dama daan wax ne bu màggal ñëwaan moom sax sëñ Béthio sax moom bu ñu màggali nii ba ci ëllëg sa rek commencé na màggalu déwén moom bu ñu màggalan ba ci ëllëg sa rek mu ngi xalaat bu déwén bi di ko waajal ni mu ko jàppee woon man musuma gis ko jàppee noonu màggal la preuve gis nga nag yi muy def amul fet waaw amul fet waaye nag absence am dañ koy ressentir waaye de notre côté Euh, li nga xam ne moom la bëggoon ñu ngi ñu ngi ci ñu leer na leen bëgg na fi ne waaw waaw. jërëjëf duñ leen teelu yaa. waaw jërëjëf jërëjëf di sant bu jërëjëf.